joxe tey suñu programme li ñu fas yéenee yaatal acca ma bala nga nuyoo ko ba koskan bi waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu baad audu billahi min alseytaani rajim alhamdulillahi wasalaatu wasalaamu ala maulana rasulillahi salallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu taala an ashaabi maulana rasulillahi salallahu alayhi wa sallam ajmain wala xawla wala quwata illa billahi alaliyu alazim cheikh ñu lay fay nuyo di nuyu sama turando di ñaan yàlla lépp lu ñu fi nar a waxtaanee yàlla na nekk njëriñ ñeel képp ku ñuy déglu bi ximmati mawlaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf euh, Cheikh Mouhamed Diop ñu ngi lay fay bu baax di lay dalal ginnaaw sa nuyoo set yoo te ànd ak dal am nañ ci kontaante euh, dalalaat la ni ma koy defee ak say naataango yëpp tey nag fas naa waxtaan ci lu toll ci juróom ponk waaye lépp dama koy euh, jëmale ci xam bi nga xam ne ràññeeku nga ci waaye dañ ci ñëw li ci nga xam ne ñaan yàlla am na loo xam ne yàlla baddil na la ko waaye dinañ jël siwaat ci paj bi ngay def to kenn weranteetu ko ndax yaa ngi ciy def lii di preuve atia tey nag am na loo xam ne bëggoon naa ñu tàmbalee fa njëriñu sarax laa bëgg nga wax ñu tey ndax ñu bari ñu ngi digle sarax ñeen ñi di def sarax mais daa mel ni des na euh, ni ñuy jëfandikoo seen sarax yi. waaw alhamdulilah beneen yoon am nga sarax moom buñ ko waxee rek wax neen ab jullit te bun na jullit suñ delluwaay kenn la rek te moom la yàlla royloo mooy yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi mm-hmm. wax na ci benn xadis na suma bañutoon a sonal sama xeet wi. kenn ku nekk trois cent soixante cinq cër mu ci doomu adama bu nekk te doomu aadama boobu bu sañoon bët bu set benn cër boobu dana ko génneel sarax mhm. nga xam ne njëriñi sarax mu waxaat ne asadaqu tam na ul mawtu suu'i wa du vakku mooy sarax dana fekk deegu ñaaw bu waroon a ñëw ci yow mhm. dana la fegal ay musiba ak i balaa ah. beneen xadis mu ne maa naqasat sadaqat min maali wa ma zaada allahu abduhu afwan illa rafahu llahu mhm. mu na sarax du wàññi alalu jaam bi nga xam ne dafa yëkkate alalam di ko saraxe ñu ne ko luñ ci jëlee mu ne lu dul jaam boobu di ko def yàlla daf ko yokk ginnaaw yokk bi yonent bi mu ne yàlla dana ko jéggal mhm. ginnaaw jéggal gi yàlla dana yëkkati ay darajam te yaakaar naa doomu adama boo gis ci man àdduna lépp lu mu mën di yëngatu ndolal la ci bëgg ginnaaw ndolal gi mhm. yàlla jéggal ku la ci bëgg ginnaaw jégal gi yàlla yëkkati ko te loolu ci sarax nga ko mën a amee. Mhm. waaye nag ci n'importe quel sarax ak ban sarax. Mhm. ak kan lañ ko war a jox. ak nañ lañ ko war a génnee ak ci ban waxtu lañ ko war a ak nuñ ko war a génnee. parce que am na sarax yoo xam ne nit ñi danañ ko def defuñ ko ngir yàlla. Mhm. am na yoo xam ne nit ñi dañ koy def def ko ci ngir yàlla. ban nag lañ gërëm mooy sarax bi nga xam ne danga koy def ngir yàlla. nit dana nekk ci ay jafe-jafe nekk ci ay xat-xat nekk ci ay difficulté nekk ci ay problème mhm. nga jàkkaarloog nitu yàlla boo xam ne xam na dëgg dëgg dëgg sarax mhm. mu wax la benn sarax nga def ko rek yàlla dékante sa mbir yooyu yëpp parce que lépp daf loo gis dafa am yoon mhm. nit bii dem ci dëkk laaj na mu xam yoonu dëkk ba nit nag bii def dara laaj na mu xam ku koy def parce que yàlla dafa wax ci alquran fas alu ahla zikr in kuntum laa taxlamuun na ngeen laaj parce que nit bu xamut dafay laaj. Mhm. te sarax am na koo xam ne bu la waxee tey ndox mi jël ko nga saraxe ko boo ko defee rek yàlla ubbi say mbir. Mhm. sarax mooy lépp doomu aadama. ni nga xam ne yoon ti wax na ñaan mooy ngàndaayu jullit. Mhm. noonu la waxee na na ngeen fekk seen feebar yi ci sarax waaye ci ban sarax mooy ci sarax buñ xam. buñ xam mooy sarax boo xam ne ngir yàlla nga koy def. dara bañ caa bokk. lu dul bokkaale. Ah. ngir yàlla moo tax. am na solo jërëjëf euh, Cheikh Mouhamed Diop ci ponk boobu nga xam ne ci la tàmbalee ñu ci doon yaatal bu baax a baax doon ponk bu am solo waaye laata may ñëw ci li nga xam ne sa mënin la damay ñëw ci beneen ponk boo xamante ne yéen ñëpp yéen a ngi ci waxtaan waaye saa su nekk nit ñi dañ ci dellusiwaat di ci yaatal yow nag am na loo xam ne yàlla dénk na la ci ci mbiram paj ak ñaan ci rab ci boppam mooy lan ak euh, nan la nit ñi mën a def ba euh, ñi nga xam ne rab da mën koo seppi ba mu ñaankat yi du sëriñ. rab de mooy saytaane olof di ko wax rab parce que arab yi dañuy wax ne kasratul asmaa yi tadulu ala sarafil musamma ñu ne bëril tur dafay waral teddaangeeg la ñu tudd. Mhm. rab nag dafay mindeef moo xam ne ci nit rek lay nekk. Mhm. di mindeef mu doy waar. rab di loo xam ne mën na tee jigéen mu mel nu mu war a mel. góor gu ñëw ba labat ko ba wax ba dara desul lu ci farata rab bi fiire dox sa diggante ak moom ba nga xam ne góor gi dootu ñëwati. Mhm. rab man na nekk ci yow nga nekk ak sa borom kër fu ngeen man di nekk da ngeen xuloo rek bu sa borom kër génnee même pas dix minutes. Mhm. nga oo ko di ko jéggalu. rab mën na nekk ci góor bépp jigéen boo xam ne dem na ba ngoro ko rek te du xam lu tax jigéen ñi dañ koy bañ rek te du xam lu tax mu koy bañ. jabar mhm. bi mooy fiire ba xam ne jigéen ñi dañ koy bañ. mi masturbé boppam ba yëg bànneex moo koy gën bu jaxasoog jigéen mhm. rab mën na tee nit nga yor alal fayeku léegi sa sareel larab bi xëptal la ba nga xam ne alal ji da nga koy tasaare te doo ci xam dara mhm. rab mën na di la gàllankoor sa wàlli àdduna wala mi lay dox sa digganteeg nit ñu baax ñi di la firéb doo bëgg dem fenn da ngay toog yow kenn di isolé wu di mer sa yaram di diis wala ngay toog di wéet di bëgg def yoo xam ne l'islam du ko daganal di def yoo xam ne daal ay bêtises rek lay doon mhm. yooyu yëpp da koy def ah. di phénomène boo xam dafa doy war man damay la ma la waxoon ci vidéo bee mujj. Mhm. man du ko faj. faj mooy loo xam ne boo ko defee waxtu wu nekk mën naa dellusiwaat ci boromam. Mhm. man rab dama koy dindi ci doomu aadama dama koy sempi ba set ma sànni ko ci doomu aadama. parce que lu jàng la xam ko. parce que rab du yëfu caaxaan. Mhm. toujours boo koy faj am na yow noo war a préparer sa bopp ba nga xam ne. boo ko fajee tamit ëllëg yow du la lor wala mu lor sa njaboot. moo tax nag du lu yomb. koo koy fajal tamit. na xam ne du lu yomb daal. jërëjëf dinaa dellusiwaat foofu yaatal ndax yaa doon wax ba wax ci mbiram rab yaatal ci euh, lii di sëy waaye damay ñëw ci li nga xam ne euh, sa la kenn weranteeti ko mu di seet rawatina ci biir réew mi bitim réew ñu bëri nañ ne euh, koo xam ne ponkal nga ci mu ñëw ci ni ngay seet. waaw seet moom yàllaa ñu ci may. dinaa wax ne bëri na ñu ci wax fii lañ ko jànge seet nag man damay waxtu duma du génn ñaar yi nga xam ne moom la sunna daganal. mi mhm. almu ramli al istixaar ramli di xam-xam boo xam ne ñëpp dëppoo ne ne jibril yàllaa ko wàccee ci jibril mu wàccee ci yontu idris hmm. keroog ba mu ko wàccee ci yontu yàlla idris ba jàngal ko pare ñu toog ñoom ñaar ci buntu tefes gi hmm. jibril pour mu essayer ndax idris mokkal na mu ne ko dama bëgg nga ramlil ma nga xoolal ma jibril fan la nekk ci àdduna bi idris ba mu tombee daf na ko fii may wax ak yow jibril soriwuma te ñoom ñaar ñoo dendee woon hmm. ci ñaar yooyu la seet ak listaxaar man xaaba man istixaara wala daama man itisaar mu ne ñaar ñii duñ perte mukk ki nga xam ne dafay dugg ci mbir mu listixaar ci ak ki nga xam ne balaa dugg ci mbir mu diisoo laaj nit ñi seen xalaat mhm. mu ne ñaar ñi duñ perte mukk man nag dinaay wax ne ma seetal nit ñàkk koo gis du am mukk mhm. parce que li ma jàngale xam ko man ko la te képp koo xam ne seetal naa la. Mm-hmm. lama lay wax dafay dëppoog la ngay dund exactement te virgule du ci dañ. mu ko acca ma ñëw sàcc wax leen xanaa ñenn ñi dañoo umpale xanaa xamuñu kii di Cheikh Mohamed Diop ndax euh, ponk bi may dugg nii yàlla da ko cee may ndax doon na loo xam ne mu ngi ciy def lii di preuve mu di euh, ci góor ñi ak jigéen ñi ci laay ñëw ñi nga xam ne bëgg nañu lii di borom kër te mu xaw leen a jafe waaye ñi nga xam ne bëgg nañu lii di soxna te mu jafe leen côté euh, ñi nga xam ne bëgg nañu borom kër nag damay ci ñëw suñu benn xarit di soppe di suñu wëllëre mu di soxna si di Viviane man nag dama koy ñaanal sëy na sëyaat waaye dañ koy ñaanal troisième lii di mariage yàlla defal ko ko mu doon lu yomb te gaaw lan nga ñuy jàppale foofu noonu comme ñaan ndax am na lu ci yàlla dénk. waaw alhamdulilah comme sa waay la de bis bu tegoon tànkam fii balaa semaine danga dana déggal su dàqewut bu dàqewut balaa semaine dana déggal xeer mbiram mbiram jabar yooyu moom ma ci problème moom ko defal da koy am. Mhm. waaw. bu fi ñëwee. Mhm. bëri na ay moromam yoo xam ne parce que ci média lañ nekk doo tudd tur. Mhm. ñëpp yaakaaroon nañ duñ am borom kër waaye keroog ba ñu yàlla boolee. Mhm. ci suñu nit ñoo xam ne ñoo ko jaarale ci suñu loxo. dégg neen alxayri ñoom ñëpp ci weer yi passé ci ay célébrité te gis nga ñoom ñëpp mu ngoo kon junj doy na borom xel dégg ngeen ku dégg fa mu wax rek wala ngeen am yoo xam ne di ngeen ci am lu ngeen ci roote kon nag ñu jàppaleel kii di Viviane yàlla baax na dina am numéro yi dina jot lii di vidéo bi waaye ñi nga xam ne dañu të am doom it euh, lan nga leen di baaxee ci lan nga leen mën a képp koo xam ne dangaa të am doom ci kaw moom boo nekkee ak sa borom kër boo ñëwee lañ lay jox nga jëfandikoo ko benn bi yaag sa borom kër yéen a koy togg ci ginaar ak tëng hmm. ginaar ak tëng buñ ko waxee mooy ginaar gu jigéen ngeen lal dara bu weex toog ci kaw lal ngeen lekk ko yéen ñaar hmm. su ngeen paree am na saafara boo xam ne moo ci tegu ngeen naan ko yéen ñaar ngeen jaxasoo booy jug di jël biir booy jug di biir loolu nouvelle bu neex la acca euh, jërëjëf euh, Cheikh Mouhamed euh, Diop damay ñëw ci ñetti ponk yi nga xam ne saa su nekk xalaatuma to mu di di di mbiram kaaraange bayre ak ubbeeku jamono yi ñu toll nag képp ku ko amut war nga koo mën a wuti. Cheikh wax naa la ko fii keroog gis nga fii ñu toll jamono ji képp koo xam ne amoo kaaraange yaa ngi dund ci danger parce que boo xoolee dee yi léegi nu mu bëree surtout ci wàlli oto yi dafa dañ ci insisté képp koo xam ne yaa ngi dugg ci oto parce que lu baax la lu baax moom da koy tasaare rek nga fexe ba jàng juróom benn ina anzalnaahu fi laylatil xadri mhm. yow boo ko jàngee yow kenn rek mhm. ramm nga waa oto boobu yëpp ba tax na kaaraange ci jamono ñuy dund képp kiy dund war nga ko ut parce que réew mi jaxasoo na te réew mi lëndëm na te xabaar yi di saytaane yëpp dañoo tasaaroo ci réew mi mhm. te nag li tax nga mën a mucc waxuma nit ñi rek waaye xabaar yi nga mën a mucc ci ñoom rek foog nga am kaaraange bu dul dara nit koo xam ne yaa ngi dund yàlla di la wërsëgalee dara. Mhm. da nga am lenn ci mbokk yi ñu taxaw ne diw mi du fi tekkee wala doomu diw du gën mhm. sama doom. wala doomu diw du gën a dem sama doom. Mhm. foo amee benn dërëm wala nga am benn oto am na ñu taxaw sa kanam di la xeex. ñooñ nag ñooy mën a def ba mucc ci ñoom mooy foog nga ñàkk sa bopp. Ah. damay wax ne doomu aadama dafa war a ñàkk boppam. ni nga xam ne nit bu tabaxee kër dana fexe ba buntu kër gi utal ko buntu ba mu am sécurité ñu mhm. koy tëj noonu leen nit war a ñagee boppam man nag sama kaaraange danaay wax ne képp ku ma ko jox ba nga sangoo mhm. bu la neexee bul laalati benn kaaraange képp ku la liggéey dana nërmeelu dana dana dana torox sa kanam ba nga gis ko te bu mhm. foncé tamit da nga taxaw ci bàmmeelam acca dem ci mbiram ubbeeku laata ñuy jàll ci bayre bi waa ubbeeku moom mooy lépp xam nga doomu aadama toujours danaay wax ne taxaw benn place amul benn da ngay dem ci kanam wala nga ñëw ci ginnaaw te ñëw ci ginnaaw kenn ñaanu ko yàlla nit ku ne fi soo moom mooy daf say maas. ñëpp xam neen ko. Mhm. dinaa wax ne kenn du ko sangoo ci at moom te yàlla yokku la. kenn du ko sangoo ci at moom te gisoo alal ju alal alal mhm. kenn du ko sangoo ci at moom te yàlla jox waa teraanga. képp koo xam da danga bëgg a ubbeeku xeet yëpp fi waaye soo baa ngi fi yeneen ak yeneen yeneen ña ñu ngi fi. Mhm. koo xam ne ubbeeku mooy sa problème rek ubbeeku yàlla moo suñu see gàcceel buñ ci jëflantee da nga am ubbeeku bu soobee. acca euh, bayre bi. waaw bayre moom toujours dinaay wax ne képp koo ñàkk pour nga lijjanti dara mu sotti dana xaw a jafe bayre nag ñaar. bayre jaayame jaayame bi yi la boobu mooy jaay a jaay ma boobu mhm. moom dinaa wax ne képp ku dul commerçant moom jarul nga ma koy laaj pour commerçant yi la beneen bayra bi nag mooy bayra bi nga xam ne dafay tax nit ñi bëgg la nit ñu sopp la te buntu boo fëgg jafe du am ci yow waaye nag dañ koy ci laay kaaraange parce que muus jinaax ba ñëwee ci sëriñ bi na ko ñaanal ma am bayre mhm. ba ko sëriñ bi ñaanalee mu génn muus nar koo lekk dafa dawaat ci sëriñ bi na ko teg ci kaaraange mhm. bayre nag doo ko liggéeyal nit ba xam ne day doon bayre boo xam ne dafay génn nit ñu di ko tudd di ko tudd rek tudd tudd gi amul benn njëriñ bu yàggee dañ lay cetu dafay doon bayra boo xam ne da ngay téye dara te buntu du la jafe te foo fëgg rek yàlla daf la fay defal ak yomb-yomb. barkallah atia am na solo kii di Cheikh Mouhamed Diop ci ponk yooyu nga xam ne ñu ngi ci woon di yaatal waaye am na yoo xam ne yaa ngi ci def lii di tawféex di ngëneel mu di jaaro yi nga xam ne bëri na waaye sa jaaro nag wuute na ak jaaro yi ma gis moom. waaw jaaro yi jaaro yi moom bëri na. Mhm. wuute na ak yeneen yi. te man sama jaaro commande lay doon. ci kaw ma wax ak nit ba mhm. may dem jëli ci tëgg bi ñëw teg rek. ku oo mu ñëw yëkkati jo jox la déedéet dafa leer mhm. dañ koy liggéey te buñ koy liggéey dañ koy liggéey ak sa tur suñ paree jox la ko ñaar la benn bi fekk yaa ngi koy takk mhm. nit ku yàlla bind la liggéey ba jàpp la doo fekkee musiba mukk dangay musiba dafay am ba jeex rek nga ñëw na lan moo xewoon fii te ñaareel bi fekk sa loxo bi timit mhm. ñaareel bi mën nga dund ci réew ma nga nekk ba génn fa àdduna doo dugg ci kaso beneen bi pour wàllu wërsëg la beneen jaaru bi boobu ma fekk yaa ngi koy takk yàlla daf lay yombalal wërsëg te ñaareel bi lépp loo xam ne dafa jafe ci réew ma ngay dund mhm. moo xam loo fay lijjanti ci wàlli nit diggante nit ak nit mhm. buntu boo fëgg yàlla daf la ko yombalal te ñaareel bi am am dal fay daf la yomb te mbiri àdduna yi nga xam ne dafay jafe nit ñi mhm. dara la ci jafe bu soobee yàlla tarkalla acca fajal la aajo jaam yàlla yi nga xam ne saa su nekk ñu ñuy kalaame xam naa euh, ñenn ñi dañ la cee mosut wala ñi la mos moom xam nañ ko bu baax a baax bu ne mbirum papier di kayit yi waaw kayit moom comme la ma la waxoon rek moom yàlla mosuñu cee gàcceel ci màggal gi rek bëri na ci ñoo xam ne depuis avant màggali daaw gi bu mu jeexee la ñu yàlla boole ñoom ñu jëflante ci. Mhm. ren ñu bëri ñoom ñëw neen te seen loxo la ko yàlla jaaralee. loolu nag dañ koy cante yàlla. di ko cante ci buntu amma bi nehmati rabbika fa hadis bu leen mhm. yàlla mayee mbaax a njekk na ngeen koy waxtaanee du suñ man man lépp ndimbal ak yàlla la. bañ ko dalee liggéey ba léegi. yàlla mu cee gàcceel te nit nekk ci réew nag ñàkk fa kayit mhm. nga dimbale ko ba mu am kayit ba mën a dellu ci ci njabootam ba mën leen a teral mën a gis yaayam parce que sonn neen foofu mhm. bari na ñoo xam ne seen seen yaay dañuy dee seen seen ginnaaw duñ ko duñ ñëw mhm. ñi seen waajur yi dee seen ginnaaw seen baay duñ mën a ñëw seen sœur seen grand sœur yi ñooñu nag dimbale leen bañ mën a am papier ba mën a dund ci réew moom tranquille ba lu xew ñu mën a ñëw yaakaar naa ne képp ku ci dimbalante nit da ngaa jihaat waaye loo ci fayeku nit mën nga koo maslaa ak moom ba nga xam ne du diis ci moom ba nga defal ko te yàlla tax tarkalla acca naroon naa def euh, émission ba jeexal waaye kon xam naa gars yi dinañ ma alamaan ndax dinañ ma laaj lan moo tax laajtewu ma ci mu di euh, yére bi saa su nekk dinaa ci siwaat nga mos ci xam naa ci la ñuy jeexale waaye siwo bi di ci ñambaas waaye yére bi de moom pour kaaraange la rek moom kaaraange la képp koo xam ne mu ngi nekk sa biir yaram mhm. nit liggéey la mu jàpp dana xaw a jafe parce toujours danaay wax ne borom ko fi jël te ay nit wër la yaakaar la am na ñoo xam ne dafa def dañuy bon waxtu wu nekk ñu doo leen ko joxe seen sago léegi nag boo fexee ba yooyu yëpp da nga mucc da nga làmmiñ nit ñi da mucc ci liggéey nit ñi da mucc seen musiba ak seeni ay te foo ko sol tamit musiba du la fa fekk mukk xay du la fa fekk dara lu bon du la fekk. siw ngi koy laajte de am loo leen bëgg a wan. waaw bii moom mooy socc bi. <laughs> socc bi moom. waaw socc baa ngi nag dellusi pour képp koo xam ne. Mhm. da wax ak nit wax ji ti tebbeeku. fekk yaa ngi koy soccoo. Mhm. képp koy wax ak kàddu gi dafay dëgër. te ñaareel bi tamit socc boo xam ne da nga wax ak nit toujours bu ngeen wax ba yeewal nga wan ko ginnaaw mu teg kàddu. Mhm. waaye nit ki nekk. nga wax ak nit sa kàddu dëgër dafa am solo mhm. ba loo ko wax mu def toog bi nag feeg yaa ngi koy soccoo di wax ak nit mhm. yaakaar naa doo bëgg si nit dara mu def moom tey laa koy door a a gis kii lépp liy liggéey def la ko mhm. ci sa kaw yaram moom nag du ma ko def moom képp ñu def ñu def fen fii rek nga koy sangoo képp koo xam ne dañ laa liggéey wala ñu sëf la wala ñu def la ay def yu bon bis boo ko sangoo. da nga mel ni keroog boobu nga jullee. te lépp lu fekk ci yow. sa yaram ci lu bon dana ko dindi ba mu set wicc. te ñaareel bi dana la aar aar goo xam ne benn nit dootul mën a defati ci yow dara mu jàpp la. te ñaareel bi tamit am na leneen luñ ci roof loo xam ne. Mhm. dafay dox ci wàllu rab tamit. kon atia mu ngi noonu ma bal tàggatoo. tàggatoo bi de ñaan yàlla yàlla nañu yàlla may jàmm. yàlla defal ñu ko suñu réew. te yàlla soppi jikko yi. Mhm. ba nit ñi aw ci yoon wa nga xam ne moom la lislaam gërëm parce que boo xoolee jamono bi yàqu na ñi nga xam ne ñoom lañ yaakaaroon ci ay njiit wax dëgg yàlla ngay dégg ci réew mi yoo xam ne doy na ci lañ daan nawee réew mi ci image réew buñ demee ba ñoo xam ne dañ leen a jox seen baat ñu koy jël di ko jaay ci réew moom war nga caa tiit te yaakaar naa passeport diplomatique mmh. mooy image réew parce que diplomate ci nga mën a jaay sa réew mhm. diplomate ci leen mën a wegee ci réew mhm. diplomate ci leen mën a respecté sa réew mhm. suñ demee nag ba yow teraanga gëla réew ma jox di la fay ay million jox la oto jox la carburant lool bu la doyut waroo fexe di def loo xam ne dafay delloo réew ginnaaw wala muy suufee réew ginnaaw wax dëgg yàlla bu la yàlla falee ci aw askan jiital la wala ngaa delloo réew ma njukkal lu dul ngay def loo xam ne dafay yàq réew wala muy yàq image réew yàlla nañu yàlla defal jàmm defal ñu sutura wa ma zalika ala allahi bi aziz wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf